ko xéwal gi TV tey ñu leen ko baaxoo di defee rek saa su ne ànd ak yéen ci seen émission sa liggéey sa liggéey nag tey nekk spécialité ànd ceeg ay jëwrin yoo xam ne yu ñu talentueux lañ ñu ko xam ñoo xam ne dootu ñu leen présenté fii ci Sénégal euh, ànd ceeg jëwrin Maam Biram Thiam ànd ceeg jëwrin Abdou Seck tey ñu fa yéenee dalal leen euh, Maam Biram ñu bàyyi la nga présenté wu. Ah, asalaamaaleykum wa wa ah, xana di wax jeufati Serigne Saliou Mbacke jeufati Serigne Saliou Serigne Bethio jam Serigne Saliou Mbacke yalla na yërmandeem gën a ko suñu kaw ñaanal soxna Aida Saliou yag fi lol tànn ak wér en mhm. ko cas buñu tammi teddi soxna Bethio Saliou ak soxna Adja mhm. ah, soxna Jobbe di la siar bu baax a baax oh, wa di la jox sa way di siar sama waji Abdou sen mhm. di jox jox wayam di siar wa aduna kep gu ñuy setan ma ngi lay bëggee di la siar di la jox sa jere jeufati Serigne jere jeufati Serigne assalamu alaykum maa ngi maa ngi siyaare ñëpp. Mm-hmm. soxna Jobe. Mm-hmm. maa lay siyaare. maa ngi ñaan sunu sang bi yaay de Saliou yàgg bi lool te gën a wér. Mm-hmm. te di sant bu baax. waaw si nii ngeen ñu dalalee si émission bii. ñoo ngi sant bu baax si nii ngeen ñu dalalee ni émission bii nga xam ne euh, da da ngeen ñëwoo ngir ñu ngir ñu jéem a ñëw sant Serigne Touba. moom daal ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy am ab ab ab mbégte bu boo boo xam ne. ma ngi lay ma lay sereel amul fu mu yem mhm. te di ñaan yaay di saal yàgg ba loolu te gën a wér jërëjëf jëw rek ñu door a xuus ci waxtaan wi ndeysaan waaw soxna jobbe mhm. waaw xanaa rek ñun dañoo baaxoo ndeysaan mhm. bala ñu ubbi dara waaw dañuy dañuy dañuy dañuy jàng ay bayitu xasaay ba pare dëgg la donc jàll si leneen parce que ñun dañoo baaxoo loolu waaw waaw wasiqtu bi rabbil arsi sil joodi walla المصطفى والله له مولد صفي وزاد برب الأرسس الجود واللفي مع المصطفى والله له مولد صفي

ولي قد إخلاصا بقد ما زهير ولا تقدما في امتداء محمدا عليه صلاة الله ما سان لنهويه آه. ولا تقدما في امتدائي وسيلتي عليه سلاما لا يميز فسيم آه. وانا وجه وصول واسل واسع له سياب بالأغنى نيلا والخسويم وسيم وواهب وسي وسيلة هلا خير رأي بذكر قد ما لهوي وفي الكريم الوايد الواد أدعى بلسوانا ما لسو الجور برهوي ولي النبي ظلما بليت وانا ساقز الظلم وسدوي ودادي لربي والمخفى واسمه والله لي كان بي أفير بباخر سرت بها خديما لغير بمكس وصفي صلى الله عليه وسلم يالنا فيها قلون macha allah macha allah macha allah jëriñ man biran yow nga xam ne xam nañ la ci way way lañ la xamee te ñu gis ci la ci xasaayit yi bëgg naa nga ñëw ci ñu te nga wax ñu yaay kan fan la man biram cosaanoo bëgg naa nga ñëw ci mbokk yi. <laughs> ndeysaan soxna Jobe. Mhm. maa lay siyaaraat bu baax a baax. di jox sa wàccuwaay. Mhm. di santaat sëriñ bi. macha allah waaw si ñi nga xam ne moo nu ko def. Mhm. ndax ñun ba nu jébbalu si moom. lan amatul. ñu bëri nag ndeysaan buñ ma gisee may jang xasaay mhm. dañ leen di yëm mhm. parce que man ni sa daf maa yëm waaw wax deug yalla yëm na ma lool ndax man mam biran ci wayi la ko xamee tay mu ñew ci xasaay di <laughs> jaxal na ma lool sha allah ndeysaan loolu mhm. man nan du sama jambar deug la parce que loolu nimbulu sëñ bi la parce que tay ji sëñ Béthio sëñ sali woné ko won dina dugg kër tand ka fa gën taqale ko si jëmm ji sha allah ta bama jébalu jébbalu sëñ ba légui hmm sëriñ bi dimbali dimbali ma ñu bëri ndeysaan li ma a wax rek. Mhm. comme li nga wax rek dañoo jàpp na way laa man mhm. waaye sëriñ bi daa dogal. Mhm. damaa boole ak ñaari fànn. muy jàng xasaar ak werekaan. dëgg la wax dëgg yàlla. maam Birane nag mi ngi dëkk dëkk bu ñu naan Gosaas. Gosaas laa dëkk. fa laa juddoo fa laa yaroo. di leen siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay. di si siyaar ku mel ne jëwriñ universel Massène Faye. dëgg la waaw moom di koo xam ne ndeysaan moo nu tette si daara ji. en 2005 ba léegi. dëgg la waaw daanaka lu ñu mos si sëñ Tuubaa tey ak ak ak ñeex sëriñ bi si loxoom la ko jaaree. wax dëgg yàlla loolu moom dimbalam la rek. dëgg la waaw xanaa dañ koy santaat rek si nii mënu def. ndax mën nañ ne bu du woon ak moom làmbaay ñaaw. dëgg la wax dëgg yàlla. Mhm. te xam naa ne waaye moom danañ ci ñëw.